خلق من قاد إليه زورا نف النبي للقديم كسبا وابو أخنا القديم انشبا voilà chers internautes ñu ngi nous di nuyuwaat encore ci seen fidélité par rapport euh, ak taxawaay bi ngeen am euh, face à votre site de référence Dakar Actu euh, Tay ñu ñëwaat fi nga xamante ni moom moo di Touba dans le cadre donc de cette édition 2019 du Grand Magal de Touba ñu ñëw rek dëgtal li nga xamante ni moom aajo ci ñëwuk talibé yi fi ci diwanu Touba bu ngeen xolé ñu ngi fi nga xamante ni moom ci wetu jumaa ji donc vraiment ambiance bi. Euh, est au rendez-vous tey euh, mën naa ni fidèles yi ñu ci bëri ñu ngi ñëw euh, même bu fekkente ni sax am na ci ñu bëri ñoo xamante ni tey des nañ fële ca Ndakaaru te fas yéene aussi ñëw màggal li nga xamante ni moom mooy màggaluk Touba bi nga xamante ni donc chaque année ñu ngi koy feete muy gën di rëy di gën di yaatu donc loolu lañ leen di indil tey fas yéene leen ko wan à travers ak à travers aussi li nga xamante ni moom moo di taxawaay bi nga xamante ni ñenn ci commerçant yi aussi am nañ ko ak influence bi nga xamante ni am nañ ko ci li nga xamante ni moom moo di manam euh, ambiance bi fi euh, ci wetu jumaaji donc euh, taxawayu commerçant yoy aussi ñu narko saytu narko narko aussi chambar wax len ci lu bare bare bare donc indil len aussi quelques témoignages par rapport ak li nga xamanteni mom modi manam di manam ñëwuk yi ndax ñew nañ ñom ñep yan remarque lañ def par rapport ak année précédente yi par rapport ak magal gi ak leneen ak yeneen yo xamanteni tay dina tax

amul tanku ginaaw tank kanam la xam nga moo tax chaque année daal maanaam yokkute nga si gis waaw eh, yokkute nga si gisal waaw instant ni mom gaay ñu koy magal wëre a waaw yal nañu koy fekk ay déwén yu bëri waaye. yan coppite nga gis yo xamanteni ni ngi daw eh, manam ñen ci talibé yi gisunu ko won fi non fu mu toll ni mom coppite gi bari na ndax manam walu soxna yi comme ni nan doxale lett ak yoy non xam nga. yooyu yëpp fu mu toll nii dañ na fi yenn góor yàlla tamit yenn solin yi nga daan gis ñu koy indi fii xam nga yooyu yëpp maanaam din nañ ko daal waaw kon daal maanaam ni ñuy wax daal sëñ Mountakha daal yàlla na fa yàgg te ànd ah, Casamance dañ jógee dañ ñëw pour euh, affaire Serigne Touba yaa ma gën a xam quoi waaw parce que tey xoolal ñu am ensemble bëgg Serigne Touba trop. moto mo nyofi ñu waral ñew fi quoi. nga a fi bass fii ba ñew fi euh yoon beeg euh, manam jafe-jafe yi nga xamanteni ni nga ko doon jankontel ci manam sen déplacement pour ñew fi ci Touba est-ce que euh amul amélioration wala yeen ciopité ngeen ci gis yo xamanteni manam amul won auparavant. si amul won jafe-jafe trop parce que buñ doon ñew ci yoon métti na trop parce que suñu auto da doon paan ci yoon bi rek mais sant yalla rek comme yex nañ ci jamm ñu lu lañu ñaan quoi wa instant ni vraiment content na ak ñi ñu fi nekké sant yalla bu baaxa baax waaw maa ngi bàyyi sama kilifa bi wax ko Masaalikul Jinaan bi keroog euh, ñu bëri aussi teewe ko mhm. tey mu amaat maanaam taxawaayu fidèles yi fii taxawaay bu am solo fii ci Touba. Mhm. Euh, ban maanaam relation nga mën a def ci présence boobu noonu amoon ci Masaalikul Jinaan ak bu tey bi fii ci Touba. parce que jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba maa ngi ñëpp xama di delloo njugal <coughs> di leen wax ni ki xama rek dañoo kontaan ko jógee Casamance Ziguinchor ñëw bu fi fekkee bésu mag bi sama gars yi ñoom mosuñu fi ñëw lii mooy première fois di fekkee 18 safari Massalikul dina lu fa amone ñun fekke ñuko mais setan dañ ko télé ko télé rek xama si ñëpp quoi képp ko jullit mbégte la wara don ci yow mbirum seigne Touba xama mënu ñuko jéxal dinañ ko fi fii ba suba duñ ko jeexal di ko santé di santé seigne Touba xama di wax ni que am relation dafa am chaque année la dañuy gis magal gi ni day gëna day gëna yok yokk voilà Moustapha comme niñ ko waxé légui rek ci manam ndjelbenu reportage bi tay bi ñu ñëwee fii euh, defe naa fekk nañ fi lu bëri lu ci mel ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo di fidèles yi seen teewaay euh, seen euh, maanaam arrivé fii au niveau donc de Touba waaye tamit ñu seetlu fi benn présence bu maanaam considérable par rapport ak li nga xamante ni moom moo di taxawaayu commerçant yi donc tey ñu ngi fii rek nga xamante ni moom moo di ci place u waa ji nga xamante ni fekk nañ ko fi moom tey muy yëngu ci li nga xamante ni moom moo di njaayum kurus ak yu ni sëñ bi ñu ngi nuyu ñu ngi di fay ñu leen siyaar bu baax leen delloo siyaar bu wér. waaw tur bi naka la. Cheikh Awa Balla. waaw Cheikh Awa Balla tey euh, ñu ñëw fi nga xamante ni moom moo di sa place euh, juste ci contexte màggal gi nga xamante ni tey moom moo di màggalu euh, Touba 2019 di édition boo xamante ni tey gisaan gisaan nañ ci aussi présence su taalibe yi boo xamante ni am na solo lool. tey yow mi nga xamante ne yow yaay yëngu ci wàllum njaay yu ni mel lu ci mel ni ay maanaam tere xasaayit ak li nga xamante ni moom moo di ay kurus ak yu ni mel tey lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ni moom moo di sa maanaam njëlbeenug jaay ci li nga xamante ni moom moo di veyu màggal gi. waaw màggal gi de moom daa nekk loo xamante ni day lu ñëpp bokk loo man ni daanaka bu dugg rek ñëpp xam ne ñëw na bépp ko xamante ni commercial day yëngu moo xam lu mën a rek bu màggal weer bi bu teeroo mu xam ne mbir mi yëngu na waaw màggal nag moo nekk loo xamante ni mboolem lu nit mën a yor lu mu mën a doon rek su màggal ñëwee dana gis ak soppite bu baax a baax sëriñ bi ay mbiram moo demee noonu waaw mboolem lu nit mën a yor rek su màggal ñëwee ñëpp koy yëgandoo xam ne moom màggal moom day dox rek at mu ne day gën a dox mais njaay mi tey ban coppite nga ci gis par rapport ak euh, maanaam euh, jamono ji nga xamante ni daawul nekk màggal ban coppite nga ci gis maanaam ban changement waaw changement bi moom bari na loolu te rëy na trop nag waaw borom Tuubaa moom amuñu fayam moom waaw màggal moom niñu ci maanaam amun ñu ko am ci fenn moom waaw màggal moom li ñu yëg moom ñun rek ñoo xam fu nekk nii waaw ñu ciy am bu baax a baax. donc màggal gi daal mbir mi day gën a yokk loo doon jaay tey benn di nga ci jaay ñett wala juróom. waaw moom kay amul amul dem waaye màggal gi moom màggal gi la rek moom moom rek yàlla lépp a yokk lépp ay neex daal yëngu daal moom moom màggal Tuubaa. waaw ñu ngi sant yàlla nag bu baax màggal gi moom wax dëgg yàlla moom ca kaw rek billaahi waaw a robe bi yëpp moom mu ngi dox waaye wax dëgg yàlla waaye nag lii moo nekk di dox nag yi moom mooy gën a dox ci maanaam sous-vêtement yeeg euh, t-shirt yi ñu tage sous-vêtement yi waaw ak t-shirt yi ñu euh, lii nii peinture mooy gën a dox ci màggal gi waaw boobu moom dañ si gis suñu bopp bu baax a baax wax dëgg yàlla waaw ndax ñu ngi jaay ay 1000 1500 ay 2000 2500 ba 500 waaw. ñu yomb lool ci taalibe yi. waaw waaw mu yomb lool te duñ si am nag gars yi benn gaañu ay waxtaan gu neex rek wa dëgg yàlla ndax ci màggal lañ nekk am na yenn wax yoo xam ne doo ko génne. il faut nga neexlante mooy loolu da day métti nag yenn saa yi waaye dañuy xëccante rek suñu waxtaanee rek dañuy jubóo ñu jaaree si lu yomb 500 waaw même soo fayee 400 sax am ñoo xam ne léegi koy ñu xam ne màggal gi moom mooy loolu il faut ñu balante si àq rek xam ne loolu yëpp sëñ Tuubaa nag moo ko liggéey waaw ñu sant si yàlla baax a baax day jeex tak tak day jeex bañ dañu dem di damaanaat waaw day jeex moom dëgg waaw ndax moom day day dox ndax am ñoo xamante ni day ñëw commandé sax ay douzaine pour ñu jox jox leen ko ndax am ñoo xam ñoom yóbbu sori seen i njaboot loolu moo tax waaye nag soo ñëwee pour douzaine moom dañ la koy yombalal waaw dañ la koy yombalal waaw fekk na ñu ngi koy jaayee 500 moom dañ la koy jaayee 400 wala ay 350 rek. pour nga yeneen tamit yoo fiy yu wuteeg yi wala. waaw ay robu ay robu robu yaa ngi ah, ñoom euh, lii nii robu yi ñu ngi jaar ay 6000 waaw waaye xam nga instant yi période màggal bi soo ñëwee dañ la koy jaay ay 5000 ah, ay 5000 oui si la ñu jaay quoi. lépp doon ay yére yi ngir ñi nga xamante ni ñoo ngi ñëw fii ndax nemmeeku nañ ni dëkk bi aussi dafa xaw a tàng. oui trop trop dafa tàng trop waaye yii moom wax dëgg yàlla baax na trop baax na trop ci euh, time bi tàngoor bi nii boo moom wax dëgg yàlla da ngay féex da am sa bopp daal waaw ci gàttal da am sa bopp bu baax a baax a baax oui 1000 francs yi tamit am na fi ay yoo xam ne 1000 francs 1500 yëpp ñu ngi si biir. yan article nga mooy bagage yi ay darab ay tissu jigéen ñi mais sëñ Bamba moom amul morom moom waaw. mais da nga euh, tey da jàpp ni li nga xamante ni moom moo di njaay mi par rapport ak euh, période bu dul màggal daanaka mooy gën a dox daal parce que nit ñi euh, vraiment ñi nga xamante ni ñu ngi jóge fu nekk ci àdduna bi dañuy ñëw fii ngir célébrer li nga xamante ni moom moo di màggal. màggal gi màggal moom lay doxee moom màggal gi moom Fall non moom lay doxe quoi parce que man benn instant chauffeur camion la camion waaw la fa demee quoi. mais yan jafe-jafe nga ciy jànkonteel d'habitude. non wax dëgg fa yàlla moom fii boobu lépp jaam dëgg neex yàlla amu si benn jafe fii boobu Touba amu benn jafe-jafe lépp jaam ndax mbokk taalibe ay borom lañu amul par rapport ak njaay mi dara du du am stock boo xamante du ngeen ko bañ a écouler ak yooyu. si day am stock bu des gisoo lii nii day am stock bu mais la lu si dinañ di ngeen ko écouler waaw. ñoo ngi bu baax daal. chaque année yow da ngay ñëw. chaque année damay ñëw waaw chaque année damay ñëw. d'accord noo gisee gi ak euh, mbooloo meeg yooyu. gën a bëgg rek bàyyi Seydou Fall gën a bëgg rek gën a rek waaw gën a bëgg rek. defe naa ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ñun ñëpp aussi ñoo ko apprécié euh, par rapport ak ñëwuk ñi nga xamante ni ñoom ñoo di fidèles yi jóge fu nekk ci àdduna bi ñëw célébrer li nga xamante ni moom moo di màggal ak Touba euh, donc euh, bu ren gii nga xamante ni nemmeekoogum nañ ni vraiment am na nit ñu baree baree bare ñoo xamante ni ñëwagum nañ ci te màggal gi donc jotagul defe naa donc suba la lii rek day wane ni vraiment ñi nga xamante ni ñoom ñoo di murid yi vraiment ak képp koo xamante ni vraiment bëgg nga l'islam tey euh, ki nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Euh, jàpp nga ni vraiment am na envergure bu considérable boo xamante ni am na ko euh, ci li nga xamante ni moom moo di touche euh, islam tey aussi donc ñëw nañ comme ni ngeen ko gisee dem nañ ci ñenn ci ay commerçant wax nañ ñu li nga xamante ni moom moo di seen gis-gis par rapport ak ni ñuy écouler seen marchandise bi jàpp nañ ni ñu ci bëri ci ñoom vraiment am nañ li nga xamante ni moom moo di satisfaction par rapport ak ni ñuy jaayee seen marchandise yi ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo fi soog a ñëw li nga xamante ni moom moo di marchandise bi fi nekk article bu nek nak gis nañ ko fi waye liñu mëna japp ni rek mom modi am nañ li nga xamanteni mom modi ñaanuk señ bi ndax japp nañ ni globalement lepp lo xamanteni ñaan nañ ko ak lepp lo xamanteni euh, def nañ ko fi ci bërëb bu sell bi euh, dina euh, fay ci fay yi nga xamanteni fay yu yiw lay doon donc loolu lañ indi loolu lañ leen indi leen loolu lañ leen indiloon fi nga xamanteni mom modi donc ci environnement jumaa ji le temps que ñu développer ak yeen comme niñ ko tam di défé chaque année à travers de grands reportages à travers aussi de grands débats de grands de de grands entretiens donc yi nga xamante ni ñu ngi ñëw euh, ci cadre màggal gi ñu faisons len euh, ko dektal wan len ko yeen suñuy euh, chers internautes di len encore une fois ci sen tewlu di len jox rendez-vous très prochainement ci yenen événement toujours dans le cadre du Grand Magal 2019 وابو أخنا القديم شبا